ñoo tax mu loolu mënuñu réussir benn politique ak mois je dagro alimentaire parce que agricole c'est matière première bi rek la mooy maanaam baykat yi rek ngay waxal euh, producteurs yi rek ngay waxal mais boo bayee ba pare comme ren nii ñu ngi bëgg a yóbbu suñu rendement bi parce que loolu tamit euh, loolu loolu la def tout le temps mooy ji ma yokk li ñu bay mm-hmm. mais boo ko yokkee ba pare danga ko war a conserver boo ko conserver par da nga ko war a transformer boo ko transformé par da nga ko war a commercialiser donc muy muy chaine bu gudd gudd gudd. Mm-hmm. alors bu fekkee da ngay wax rek naan euh, mbay agriculture tout simplement doo tenir en compte aspect yooyu yëpp. Mm-hmm. donc euh, loolu moo tax euh, je parle d'une manière générale de l'agroalimentaire et je suis spécialisé dans l'agroalimentaire. Mm-hmm. maintenant. Euh, li nga xamante ni moo tax loolu di am muy sa question boobu les problématiques ak lu tax mënuñu ko réussir. ba tey jusqu'à maintenant. oui euh, c'est que y a plusieurs problèmes euh, problèmes yi nag bëri na ñu bëri bëri xam nañ ko donc et on n'a pas encore apporté maanaam indiwuñ saafara yi ci war ci problème yooyu. mais ñoom ñëpp dañ naan question de vraiment ku ci toog da nga naan da koy def priorité parce que gis nañ le gouvernement qui était en place autosuffisance alimentaire sécurité alimentaire souveraineté mm-hmm. alimentaire il y a le gouvernement qui est là aussi mm-hmm. qui amène les mêmes slogans mais lu tax vraiment c'est xanaa question de je pas c'est une question de volonté mais est-ce que du sax mm-hmm. plus c'est des questions de moyens aussi waaw non en fait euh, boo du du kii la vision la c'est vraiment moyens di ñëw l'état man dama jàpp ni état de am na ay moyens mm-hmm. mais vision bi des fois moo dul leer mm-hmm. donc ci projet Pastef bi quand même il y a une bonne vision une belle vision euh, maintenant bu ma naan vision la comme li ma wax il faut analyser d'abord le problème et apporter des solutions concrètes. il faut ñu def li nga xam mooy état soo bëggee def état des bi comme sànq ni ma ko waxee mën naa ci jox ay exemple yu simple yu terre à terre. Mm-hmm. yow da nga bëgg a bay. da ngeen ni li ñuy lekk ci réew mi doyul maanaam atteindre sa auto autosuffisance alimentaire loolu bu amee ngay jiima jox say baykat ay jiw ay semence pour ñu mën a yokk li ñuy bay mhm. te lijjantiwoo conservation bi mhm. mooy vision bi des na boo ko conserver ba pare lijjantiwoo de le mettre en valeur mooy vision bi des na ba léegi te boo xoolee bu baax comme sànq ni ma ko waxee donc ci problématique yooyu li li ci gën a am solo mooy euh, bu fekkee mbay mi bëgg nañ ko réussir malgré du spécialisé wu ma ci bay mhm. mais foofu la ñuy commencé bu dee dañ ko bëgg réussir mhm. dañoo am défi ndox maanaam ndox mi il faut mu doy parce que quatre-vingt pour cent wu suñu producteurs yi Euh, ñi nga xam ne dañuy bay ñoom ci euh, taw bi lañ ko dépendre. mais on a on a on a énormément de ressources hydriques parce que bu ñu nee nañ même même nappe phréatique sénégalaise bi am na am na ndox am na ndox. mais aussi mm. on a on a on a la ressource terre. Mm-hmm. c'est-à-dire bu ñuy wax agriculture aussi au Sénégal on peut dire que mm. vraiment on a. assez de moyens de production yoo xam ne ñu ngi fii Sénégal. waaye mais on l'exploite pas. Mm-hmm. am nañ ko ak exploité nañ ko bokkul. Mm-hmm. am nañ suuf su bëri mais bàyyiñu ko Sénégal. euh, on a pratiquement un million et quelques bon si je m'abuse euh, cent de terres arabes mooy maanaam ay terres yoo xam ne mënees na see bay mais quarante pour cent lañ bay bayuñu sax cinquante pour cent de si ci lu ñu am ci lu ñu mën a bay am na réew yoo xam ne mm-hmm. loolu amuñu ko mm-hmm. dañuy toj sax ay montagnes di xàll ay ay ay tool di sonn ci trop trop te te te ñu ngi ñu ngi koy bay. maintenant en plus mën nañ demander beneen question cest à est-ce que ce sont même les Sénégalais qui font qui font cette agriculture aussi ci 40 pour cent yooyu. est-ce que waaw waaw loolu lépp ngi ci biir 40 pour cent yooyu Sénégalais yi ñu néew lañ ci. Mm-hmm. et lu ci gën a bari ba comme li ma lay wax mbay bu dundee la du bay boo xam ni sax mbay parce que agriculture ni ñu ko jëlee fii jëlee ko agriculteur mm-hmm. mooy. ñu jàpp ñu bëri jàpp nañ ni boo nee agriculteur nga sax pauvre nga war a doon man mm-hmm. école bi ma génnee fële ci Canada Euh, dama bokk ak agriculteur agriculteurs malgré ci bi domaine bi dafa xaw a yaatu. Mhm. mais bu ñëwee oto yi ñu gaare ministres yi fii amuñu ko de. am na ci ñoo xam ñu mag ñi ay jet privé la ñu yor. Mhm. c' est des vrais agriculteurs parce que ñoom ay exploitation la ñuy yor. Mhm. donc fii li fi am mooy dangay am dangay am soxna. am ay doom. ngeen wut seen benn kër nga am yàlla may la nga njaboot nga am sa benn hectare nga koy bay. ak des moyens précaires. Mm-hmm. amoo équipement bi war. Mm-hmm. ndox mi da ngay xaar ba nawet nga door a bay. Mm-hmm. soo bayee ba pare xaaj bi da nga koy dundee. li ci des dafay yàqu parce que amoo formation bi. pour pour xam ni ñu koy conserver amul des unités de transformation pour le transformer boo paree ci loolu lépp looy gën di dem parce que am na d'ailleurs benn expert sénégalais boo bu ci bind sax Abdourahmane Faye la tudd euh, comment réussir l'agriculture au Sénégal foofu day wax ni des fois cultivateur lu ñu gën a dem seen tool day waa seeni suuf day wàññeeku te loolu problème bu rëy la mooy lu foncier aussi. loolu beneen problème waaw parce que boo gaañoo. Mhm. sa say doom. dañuy dañuy séddoo dañuy séddoo terre yi. bu ñu ko séddoo bu fekkoon par si hectare nga am ku nekk peut-être trois cent mètres carrés lay am parce que bon jaboot nga ak yooyu. Mhm. xam nga loolu loolu mënul jëmale réew kanam. donc accès au foncier état bi aussi jiima fexe baral loxoom fexe baykat yi ñu am ay titres corrects yoo xam ne dana leen mën a permettre ñu exploiter ko en toute tranquillité ñi nga xam ne ñoom tamit am nañ ko te exploiter wuñ ko ñu jéem a dugg ak ñoom ay partenariat yoo xam ni quelqu'un d'autre privé peut l'exploiter ñoom ñu ciy gis seen bopp c'est-à-dire louer la terre mmh. donc yooyu nekk ay solution comme nga si ndox mi laa commencé ni la ndox mi dafa manqué mmh. euh, boo paree ci ndox mi mooy accès au foncier à la sécurité foncière mmh. ak l'énergie parce que booy bay tracteur bi day soxla ay bu fekkee da ngay bay ak ay outils. Mm-hmm. donc énergie ak équipement bi pratiquement ñoo ànd. Mm-hmm. donc da soxla ay équipement moderne di nga soxla euh, euh, aussi euh, am am am am am courant. Mm-hmm. xam nga mënoo bay ci digg àll bi te amoo courant. donc yooyu yëpp nekk foofu ak beneen défi boo xam ni mooy défi bi gën a primordial mooy la formation. la formation bay ñàkk jàng doon baykat. taxul doo am formation man formé naa ba tàyyi ñoo xam ne mënuñu bind seen tour Canada accompagnement bi après Hmm? Ça, c'est l'accompagnement de ces de ces cultivateurs là waaw accompagnement bi euh, bon accompagnement bi parce que accompagnement bi loolu mécanisme la xam nga état bi tey. Hmm. su fekkee jël na par exemple man dama koy joxe exemple tout le temps ma ne juste benn producteur de lait koo xam ne mu ngi ci àll bi di di parce que lait ci production la bokk malgré élevage la xam nga donc benn producteur de lait boo ñëwoon ni ko sa ndox sa meew bi euh, jàngal ko ni ko am na lu ñu woowee thermisation mooy maanaam da ngay jël meew bi nga nuggal ko tuuti mm-hmm. ah euh, bu mu baax mën nga koo garder bu fekkoon euh, sa durée de vie cinq jours la sept jours lay doon da nga yokk ñaari fan ci wàllum conservation waaw mm-hmm. loolu connaissance la lu tuuti la mais connaissance la est-ce que xam nañ ni Euh, kii bii nga xam ni mooy euh, nag yu ndaw yi ah, ah dañ ciy génne benn euh, benn hormone bu ñu woowee présure boo xam ni fromage yu bari yu ñuy lekk ci réew mi 15 minutes lay doon fromage parce que ci nag bu ndaw boobu lañ koy euh, extraire ci laboratoire. Mhm. pour def ko ci au bout de minutes mu doon fromage on l' appelle présure. présure tubaab dañ koy utiliser di ci produire des tonnes et des tonnes de fromage di ñu ko jaay. ba tey si transformation bi ngay wax c' est à dire moo tax mhm. sànq dañuy ñëwaat un peu ci problème vision parce que yaa ngi koy wax tey jii simplement agriculture mais après dafa mhm. point boo xam ne dafay ñëw te dafa am solo trop trop muy la transformation de ces waaw man donc mu gis nga point bu am solo boobu nag bu ñu ko bëggee réussir parce que man je suis ci benn position boo xam ne laay waxee mooy. mu mhm. bëgg ñu teg lu concret lu yomb. Mhm. donc nañu former d'abord. Euh, agriculteurs yi ñu nga xam ñoo nekk en contact avec la matière première mooy lu secondaire bi mm-hmm. ñu mën a bay bay bu ñoŋ mais ñu mën ko garder aussi d'une manière primaire mais mais ci jim ko xam yenn technique de conservation yi ak yooyu pour mën koo yóbbu nag ci beneen niveau bi secondaire bi maanaam dañoo war a may usine mm-hmm. réew mi man dama demoon Casamance bërki démboo Njaay am naa fa ñetti fan dugg ci àll bi fekk anacardier bi ñu koy wax ndarka ndarkase mu nëb ci àll bi des tonnes ba Guinée ma gis mango ji di wadd ci àll bi xar yi di ko lekk. je pense que loolu la ñuy dund du Casamance kese mais je pense que boo jëlee sud bi yëpp je pense que loolu la ñuy dund. waaw loolu sud bi yëpp loolu la ñuy dund. Mhm. ak ak yeneen région de du Sénégal am na sud bi lañ mën a wax fruits yeeg yooyu mais demal ay côté Noto pour pour pour légumes yeeg yooyu même ñu ko fay bay sax dañ koy sànni parce que à un moment amuñu ay unité de conservation sur place amuñu yenn jumtukaay yi amuñu formation nécessaire bi même juste pour tabax benn néeg rek boo xam da nga ciy def ay aliments dafa am noo koy ventiler. Mhm. juste cette petite connaissance là mën na. yàggal see bu doon soble la am na jërul sax réfrigération am na nooy aéré fi nga koy def ak yooyu ak fi nga koy teg. Mhm. mën nga ko conserver six mois. ay techniques la yoo xam ne vraiment des techniques simples yoo xam ne mën nañ ko aider aider li nga xam ne moom mooy les agriculteurs mais sànq ba tey bu ma lay dégg nga wax tey jii tey jii est-ce que loolu tamit dina mën a dina dina mën a satisfaire la demande nationale parce que tey jii nii ce sont des techniques on peut aider ces petits agriculteurs là. Mhm. mais est-ce que ça va ça va ça va permettre de satisfaire la demande nationale aussi. ben écoute. Euh, est-ce que ça va satisfaire la demande nationale. Mm-hmm. man dama jàpp ni wax naa ko Casamance barki démb. Mm-hmm. parler suffisance alimentaire sax nekkul yoon ci réew mi. pourquoi. ñun dañoo waroon di lekk ba desal di jaay bitim réew. loolu mooy dëgg parce que am nañ suuf si am nañ lépp du lim ñun ñun ñëpp xam nañ li ñu am. Mm-hmm. am nañ jant bi pour l'énergie solaire et tout donc. satisfaction bi loolu dina ko satisfaire bu ñu ko defee d'une manière euh, vraiment parce que le, le nouveau ministre mu ngi ciy def liggéey bu am solo ak vision bu baax xam nga maintenant boo xoolee bu baax euh, bu ñu tegee rek parce que demande bi bëriwul de nous on est combien on est combien de millions dix huit millions. dix huit millions dix huit millions de personnes. ba vingt millions cent quatre vingt seize mille sept cent quatorze quelque chose. Mhm. donc réew mu ndaw a ndaw lañ ñun yow mënuñoo dundal. Mhm. Euh, exemple bu concret man liggéey naa Danone en 2016 2017 en tant que opérateur process donc man man rek sama benn shift. je dama doon stériliser en termes de lait deux cent mille euh, deux cent mille litres de lait. deux cent mille litres et j'étais seul. je parle pas d'une entreprise boo xam ne y a énormément de personnes. Mmh. donc comme ñoom ñaata lañuy ñuy produit par jour ñoom li def dafa simple dañoo jël meew bi yépp ñu organiser ko en coopérative. Mm-hmm. képp kuy defar meew jënd ay oto. yoo xam ni réfrigéré yoo xam ni ay citerne la yu sedd mm-hmm. ñoom ñooy def collecte autour ñoom c' comme si dañ koy jaayaat état bi mu jënd lépp mm-hmm. mais usines yooyu noonu bu amul capacité de production boobu day taxaw mm-hmm. fait sa ça carrément rapidement mais loolu vision la c' est rien du tout est ce que ñun mënuñoo am loolu est ce que mënuñoo def benn coopérative boo xam ne pour produits laitiers yi la mm-hmm. képp koo nekk producteur euh, laitier ñu inscrire la ci du camion yooyu di def ronde bi di récupérer lait bi di ko yóbbu ci station de stockage yi ñu euh, annexé avec l'usine de transformation ñu ciy defar ay yogourt. Mhm. di ci defar ay soow. mu am ay produits dérivés yu ay produits dérivés yu dul jeex. yu dul jeex di ci defar ay fromage. fi nga nga laal daf may daf may daf may permettre ma def benn benn relance par rapport ak le privé tey jii nii bu ñu bëggee. tey jii moderniser l'agriculture sénégalaise. Mhm. rendre ko performant est-ce que waruñu jouer avec le avec le privé aussi. oui ba loolu tamit dama koy wax tous les jours. Mhm. l'État bu ko jiimee état bi bu jiimee monopoliser ko dafay échouer la lamentablement mhm. privé bi parce que loolu laay wax parce que ci création emploi la bokk xam nga li ma lim fii yëpp ay emploi la privé bi ngay dooleel parce que état munul jox ñëpp emploi état munul créer usine fépp kan moo koy gérer mhm. du ko gérer boppam xanaa mhm. donc ah, il faut mu liggéey ak privé bi maintenant l'état créer des conditions d'employabilité day fexe ba am conditions yi nekk loolu pour mu nekk fi day fekk benn jeune bu am projet. mu accompagner ko. accompagner ko dooleel ko te doole c'est pas juste des moyens financiers ñu loolu lay état yi tamit suñu état yi moom la ñuy juum. africain yi mhm. Mhm. ñoom suñu état yi dama koy wax fu ma toog président de la république yi bu ñu amee ay invités seen hôte yi bu ñu ñëwee. Mhm. dañuy ànd ak seen seen seen champion yi. bu ñu xamee ne Sénégal ceeb lay dundee ñu xool ni réew mi ceeb lay dundee te amuñu jomm bayal ko seen bopp ba mu doy. Mhm. waaw bi président bi di ñëw day ànd ak producteur de ceebam foofu noonu sol ko costume bu rafet parce que kenn du ko xeeb. dëgg la kooku dafa am mission. Mhm. bu ñëwee ñu ànd dugg ci pale bi mu ni président bi nuyul kii sama c'est c'est c'est entrepreneur de chez nous président bi nuyoo ak moom léegi mu woo ministère léegi mu woo ministre du transport écoute euh, kii maa la booleeg moom bu fi indee ay ceeb ak yooyu écoute facilité liggéey leen mhm. tu viens de lui ouvrir une porte que tu sais même pas l'ampleur mu créer des relations kooku moom mission xam nga lan la indi ceeb bu bëri takk sa xaalis yóbbu jébbal président am jébbal réewam parce que ceeb boobu. Hmm. ci réew moomu lañ ko bayee. Hmm. paysan yooyu lañ ci fay ñi ko transformer ñi ko mettre dans le sac bateau bi ko transporté donc tu viens loolu mooy fuite des capitaux. mooy chaîne de valeur la yow hmm. ubbil nga nit bunt boo xamante ni waroo ko woon ko ubbil. pro petit producteur bu ndaw bi nga xam ne mooy góorgóorlu di kii ceeb moom nga ko waroon defal muy muy sa yëf. mais ñun président yi ak suñu njiit yi mm-hmm. je parle pas de l'actuel régime man parce que Canada laa bokk mm-hmm. mais d'habitude d'une manière générale en Afrique ñoom loolu la ñuy xalaatee moo tax duñ duñ gaaw a dem. duñu duñu gaaw a dem tey jii comme ni ñu ko wax privé bi peut-être day nekk benn benn solution. mais aussi mm-hmm. encore c'est-à-dire tey jii l'ouverture aussi c'est-à-dire de s'ouvrir au monde de de aussi ci li nga xam ne moom mooy mondialisation ba des entreprises privées yu mag a mag des multinationales ñëw fii au Sénégal tamit peut bokk un peu ci li nga xam ne moom mooy moom mooy sécurité alimentaire bi ñuy bi ñuy cherché mais est-ce que du vraiment impact négatif yi du gën a bëri par rapport ak petite agriculture agriculteurs yi nga xam ne moom la ñuy gis fi Sénégal. ah mais oui certainement xoolal gis nga bu autosuffisance alimentaire te moom dama koy bañ. Mm-hmm. mais buñ ko bëggee. Mm-hmm. benn kenn duñu ko jox ñoo koy kiyal suñu bopp réew moo gis mu moom boppam ci wàllum lekk ak naan moo ko maîtriser boppam ñoom buñ ñëwee. lenn lañ fi lu ma leen fi indi c'est purement économique te ñoom dañuy ànd ak fluctuation wu marché bi seeni prix dañ koy yokk mm-hmm. parce que ñoom ñooy ñooy garder monopole bi heure bu leen neexee parce que ñoom seen population ñoralu leen ñor mooy takk seen xaalis yóbbu wala ñu takk sa matière première mun a ko conditionné ñoŋal ko ba mu ñoŋ def ci xam-xam bi ci war defal ko ba mu rafet mm-hmm. ñoom ñu takk ko yóbbu en masse conditionné ko jaayee indiwaat la ko jaay la ko. donc ñooñu. relation bi nga am ak ñoom du relation sax bu seen. kon boog loolu nekkul solution bi c'est-à-dire soo s'ouvrir actuellement à ces multinationales ne pas la solution vraiment pour réaliser la sécurité alimentaire ici au Sénégal. oui ben on peut s'ouvrir mais il faut def lépp ba. ba ba ba def benn genre partenariat boo xam ne admettons bañ jël benn multinationale boo xam ni sénégalais nekkul actionnaire majoritaire mhm. exemple. mais les grandes surfaces qui sont là actuellement au Sénégal est-ce que loolu tamit du piéger un peu li nga xam ne moom mooy projet bi aussi. Euh, non du ko piéger parce que euh, ba ñëw nañ ba pare certainement. Mhm. mais li mu bëgg wax mooy. ñooñu ñëpp mën nañ liggéey ak ñoom parce que réew moo dem nga dem Canada États-Unis Canada bu ma nekk tout ça mm-hmm. am na ay ay low blows ay grandes surfaces yoo xamante ni c'est purement américain ay winners xam nga mm-hmm. mais euh, pourtant ñoom dañuy ñëw parce que loolu aussi c'est la coopération c'est entre les pays et puis on est dans benn monde boo xam ni c'est globalisé et c'est on parle de mondialisation ak yooyu mm-hmm. maintenant mais yooyu boo ciy dilee aussi Euh, mën nga dile ci loolu ba pare privilégier sa sa sa askan xoolal ñu dal temps yi mhm. ci bu ma defee digression bu ndaw ci côté téléphonique am na compagnie yu bari yu fi nekk koo jóge foog ni moo tane dal ci keneen ki waaw gis naa sax ñu def benn mouvement di xeex ak yooyu mais parce que dañoo garder monopole bi on mënuñu rëcc fenn amul benn bon certainement on peut dire que je pense que am ñu benn satellite boo xam ne ça nous permet d'avoir notre propre réseau téléphonique ak yooyu. Mhm. mais tey loolu bu amoon duñ agsi coow lii nii duñ fi mës a agsi. Mhm. donc loolu boo dooleelul say doomi réew. Mhm. moment boobu bu jotee doo am benn arme pour xeex. am na moment yoo xam doo mën am benn arme pour xeex. dina ñëwaat un peu ci ci ci ci li nga xam ne mooy la technologie aussi dans l'agriculture. tey jii nii Sénégal on n'est pas assez outillé aussi. pour que la technologie mën a ñëw ci li nga xam ne moom mooy moom mooy agriculture bi aussi. maintenant qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour vraiment donc ci court terme bi. Mhm. on règle un benn problème donc ci dem ci li nga xam ne moom mooy moyen et long et long terme bi. ba si court terme bi. Mhm. li jiitu mooy formation yu ndaw parce que jigéen ñi souvent dañuy nekk di organiser wu en juillet. ñan la ñuy ñan la ñuy former la jeunesse. oui ci université yi wala ñi nga xam ne actuellement ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si secteur bi. bon loolu long terme lay doon. Mm-hmm. parce que long terme il faut réformer on n'a pas le choix suñu système éducatif bi. Mm-hmm. dañ ko war a réformer ngeen baal ma ñuy philosophie ak yooyu. mun mm-hmm. ngeen a xaar parce que dañoo xiif nit bu xiifee du philosophé. xam nga ak yeneen ak yeneen yoo xam bëgguma citer mais ngeen baal ma am naa xarit yoo xam ne ay <laughs> philosophe lañ dëgg la mm, donc mën ngeen a xaar tuuti bañ bañ xaw a regg tuuti mën a door a wax. yaa ngi dégg donc. dans le court terme loolu long terme la il faut vraiment man dama jàpp ne. bac soo ko amee dañu laa war a orienter formation professionnelle parce que LMD licence euh, master ba doctorat loolu jàngum nit ku riche la wala ku rekk mm-hmm. du jàngu pauvre te ñun en général dama ci boole sama bopp mm-hmm. on est pauvre donc dañoo war a cibler ay domaines de formation boo amee bac mm-hmm. ñu ñuy lay orienter menuiserie dañu réew mi dafa soxla ay maçon réew mi dafa soxla ay agriculteur réew mi dafa soxla ay transformateur donc tout sa on doit mettre un programme clair loolu quand même long terme la dañ koy bàyyi ak ministère de l'enseignement supérieur ak professionnel ñoom dinañ régler situation boobu j'imagine parce que dafa bokk ci seen Euh, comment dire ci seen plan. seen plan. Uh maintenant mm -hmm. pour long court terme. court terme bu bëggee affaire bi yomb d'abord nañu fexe ba. former nit ñi parce que mënoo def dara loo xam ne maîtriser woo ko loolu tamit c'est problématique da ngay jékki nga ni béykat la mais amoo ci yenn notion de base yi wala nga ni damay transformer te respecté wu benn norme d'hygiène man par exemple euh, dama ñu ñëw ak coopération canadienne bi di former euh, POPAS euh, plateforme des organisations professionnelles du Sénégal du Sénégal di leen accompagner ci euh, les normes internationaux seen produit yi pour mhm. mu respecter les normes mais Sénégal mën naa laa wax ni quatre-vingt-dix pour cent ñi fi transformé bu ko jaaralee voie normale bu kon ko def ci conteneur eh, exporté ko fenn du du yegg bu ñu koy dugal ci laboratoire leen ko delloo mhm. soit am na suuf mhm. soit am na ay substance yoo xam ne waru cee dem soit am na koo xamante ni ay tonnes xawma lan la euh, cere bi la defaroon mais machine wal bi dafa doon machine bi mu ko doon walee weñ la ba pare weñ bi dafa am lu mu doon laal di ci bàyyi poudre de de fer. poudre de fer boobu. Euh, doo ko gis ñun Sénégal dañ koy lekk tous les jours moo tax ñuy feebar ak yooyu parce que amul kenn ko réglementé. donc euh, pour de fer boobu bi mu demee ba ba ñu yóbbu ko ci laboratoire bi fer dañoo xoole ak un détecteur de métaux xam ne lii dafa am. fer après on a tout jeté à la poubelle. donc kooku li mu ñàkk ça veut dire que. li gën a base bi sax amuñu ko donc la formation c'est très important ak le contrôle aussi mm-hmm. hmm? euh, yi may wax formation yu ndaw ndawaan maintenant aussi l'accès au financement l'accès au financement oui l'accès au financement les organiser mm-hmm. nit ñi bëgg nañoo liggéey jeunes yi bëgg nañoo liggéey jigéen ñi bëgg nañoo liggéey nga yow yaa leen di encadrer mm-hmm. parce que même pour un projet il y a business plan doo tëb rek def projet yooyu yëpp formation bi du nekk rek ci da ngay bay dañ lay former parce que da ngay entreprendre. parce que dafa am ay aspects yu bëri yoo xam ne daf koy daf koy laalandoo. Mhm. parce que comme ni nga ko waxee c'est-à-dire du agriculture kese. Mhm. mais entrepreneuriat daf si daf si dugg lu mel ni business plan business model. Mhm. donc je pense que ne day nekk benn benn chaîne la. boo xam ne vraiment dañuy jugee un dem deux. dem trois dem quatre ba mun ko war a mën a réaliser. tout à fait tout à fait donc loolu la donc état bi fi mu toll nii li mu mën a activer wu parce que boo xoolee programme PASTEF bi. am na huit pôles. Euh, yoo xam ni dañ ñi euh, dañ koy créer pour mën a cibler un peu Sénégal lu nekk ak spécialité am mhm. ñu viabiliser ko def li ci war pour maanaam industrialisation bi mhm. euh, dañ ko bëgg a territorialiser mhm. fait que c'est ça c'est ça qui est écrit textuellement dans le projet donc quand ñoom la vision am nañ ko te jàpp naa ne dinañ ko doxal mais aussi il faut des solutions conjoncturelles parce que en ce moment nawet bi mu ngi ñëw donc comment on va faire est-ce qu'on va juste focaliser ci rendement yi ñu am déwén comme li ma la wax danañ ko am mais duñ ko conserver est-ce que dinañ ko mën a est-ce que dinañ ko mën a conserver moo tax temps bi ñu abattiroon léegi léegi mu jeex moo tax je pense que ne foofu laay foofu laay c'est-à-dire tey jii nii bu ñu bëggee jàpp ne vraiment le gouvernement en place par rapport mm. ak projet bi mu fi def am nañu am nañu espoir mais il y avait aussi d'autres projet qui étaient là mm-hmm. lan mooy différence bi lan moo ñuy jox garantie wala certitude que vraiment que ce projet là il est beaucoup plus soutenable que les autres projets qui étaient là. ah écoute certitude bi mooy est-ce que ba ngeen gouvernement yi fi jaar yëpp gis ngeen ay jeunes yu mel ni man. Mhm. di daggee ci diaspora bi di ñëw pour prêter ma forte. pas encore parce que dañ ko gëm. Mhm. te weetuma am na ñu bari ñu ngi ñëw diaspora bi ñu ngi organiser wu. Mhm. di xool nu ñu financer ay projets am naa ci ay preuves donc les sénégalais. ñoo bëgg changement. c'est sénégalais yi ñoo bëgg soppi mbir mi. Mm-hmm. volonté mu ngi fi. Mm-hmm. donc état bi mooy liir jeu bi rek. Mm-hmm. après appuyer lépp dina dox ba pare projet bi li tax ma gën ko gëm mooy ñi nga xam ni ñoo nekk à la tête du projet. amul kenn ku ciy caaxaan. ñoom ñun dañ leen topp lu yàgg xam liñ gëm. ñu jàppale leen ci xam ni aussi. ci loolu la ñuy ànd ak ñoom ci gëm-gëm te ba léegi gisuñu ñu teg benn act boo xam ne day wane ni liñ bëgg li wax nañ ñu loo xam ne waroon na ak ñun suñu bëgg. ak li nga xam ne moom la ñu moom la ñu moom la ñu bëgg. Cheikh mm-hmm. temps bi ñu impartiroon je pense que ne ndaw na. Mm-hmm. mais mais jeex na je pense que def nañ les trente trente minutes tey jii bu fekkoon da am benn benn benn élément. boo xam mm-hmm. da nga koy soulever lu mënul ñàkk ci li xam ne moom mooy débat bi la lay doon. ba lu mënul ñàkk ci débat bi. Euh, dénonciation la. parce que réew mi. bu euh, buñ ko bëggee jubal. ñu mhm. defar ko. Mhm. dañuy dañuy waxante dëgg non seulement dañuy waxante dëgg mais dañuy respecter dignité wu nit. réew mi bi ma fi dikkee ba léegi maa ngi ji mu góorgóor dugg ci àll bi di xool di proposer. Mhm. lu ne maa ngi ciy dugg te wéetu ma ci. mais gis naa ni fii nit du dara. respecté wuñ la respecté wuñ nit jëmmi nit. respecté jëmmi nit bokk na ci ma ñëw indi sama oto. ñàkk respecté dix minutes indi sama oto ci port bi mhm. vendredi passé mhm. ñu yóbbu ko holding gay mu gaare ko foofu mu ñëw ñu ma dafa xaw a guddi commencé procédure ma fay trois cent mille plus les droits de douane ñu ngi calculé en pourcentage qui chiffre à pratiquement deux millions oui. donc ma fay loolu lépp mu xaw a guddi ñu ne ma bul landee nga ñëw jël sa oto di ma ñëw di jël si oto bi fekk ñu accidenté ko entre temps fekk ñu oto bi ñu mbëkk ko après ma laaj leen mais amul woon kenn koo xam ne mën na ma wax ban procédure laay suivre ñu buux ma samay kayit ni ma noo foto def affaire seen càkk-càkk yooyu ni ma bu dee bu da bàyyi ba maar di nga ñëw